ki nga xamante ne nag moo di njiital Pastef di Ousmane Sonko moom la waa coalition Yewwi Askan Wi daal di tànn ngir mu jiite list boobule coalition fi nga xamante ne nag mooy ci diwaanu Ziguinchor ki nga xamante ne nag mooy njiital Pastef di Ousmane Sonko moo xamle xibaar bu ni mel ci ab meeting boo xamante ni doon na ko amal foofu ci diwaanu Ziguinchor kii di Ousmane Sonko nag kenn xaarul woon mu daal di bokk ci li nga xamante ni mooy élection gox-goxaat yi waaye nag xamle na ni daal dina bokk ci yooyu moo fës a yéene jiite liste ñi nga xamante ne ñooy waa coalition bu Yewwi Askan Wi